kër. mooy noonu loolu lépp da nga loolu lépp da nga koy uh-huh. mais bu la si yàlla suturaale. Uh-huh. nga boo si génnee boo amaatee combat. Uh-huh. mooy loolu. mais su boobu bi nga dugg see bi nga dugg see man gisuma pression man gis naa nga dugg si fecc nga fecc bi jëngal supporter yi benn instant gars yi woote. Sara Baye ma jaay ci biir dell bi dellu si ci

parce que région a bëri arène bi combat arène bi man tey sama yaram loo xamante ne bi yoon na ma mu ba muy jege si combat combat bi ba jege si laa la waxoon nii ñi ma daan daan contact yëpp boobu da ngaa saaga sa yaram lu attanu waaw boobu sama yaram yi nga dem ba nga dem ba fi moo tax laa wax jàppee boole moom sama laamu mais pourtant ah, lah. lah. nak tasuma bi mi fi si yo musuma taxaw wagn dama ñaan combat sama boole mo sama lamb ah man de man duma la laaj man xamna man di ma lay laaj yep xamna ko ya ngay deg mais man dama japp ce premier combat tasuma mo nak sa palmarès parce que beure ba ma jay ñaar deuxième combat bi bi nga beure mo dal ben ci ci film waaw ma ñew waale la rek ala sama mbokk gaay ñu walu ci ñu na da moy lolu premier combat bi ko mo ay torop torop am fu nekkon loolu ma ji si lambu per billaay wallaay ñëw ànd am changé waat lépp mhm. xam nga beneen beneen plan beneen stratégie tee sam bopp si wër beeg lépp booy wax ma lu ne man gars yi wax ma leen bàyyi ko man li ma liggéey xam naa ko bu adduna siif mhm. ñu régler suñu règlement de compte ah. mais si boobu da nga

moom boo daanoo. moo mel topp sa ginnaaw. boo daanoo boo ñëwaatee amateur bi ñu la xoolee dañoo war a xam ne kii am na lu muy bañ. man nag daa am lu may bañ. man de déggoo ma de ba nii nii nii nii nii. tant ma quinze victoires

temps boobu tega ne deux victoires nga ñëw ngeen bëggante fi mu ñu bëggante ñu xeex. góorante. ñu xeex waaw. mu mhm. waat jël ko suuf. Ah. daan ko. jour boobu aussi da nga ñëw fonctionner cent pour cent maanaam t'as pas perdu tes repères xam nga day ñàkk ay repères am des fois mais des fois mbir mi day ñëw mu wóor la ne kii dafa fonctionner à cent pour cent jour boobu pareil li nga bëree da nga ko teg ci yoon xeex bi Wah, nona dia isan de memo ko mo jugo ba bulan ni. Ah. Sirme. Mo de me lamo. Mo lo de nam de ko man ko. Isa bulan me ngi mo ko isa de ko dai fi asiel. Mo ko may bari di fof. Da ngay dem fof di bari. Dem fof di bari di mo la ko bari yi ni ni ni ni mo ma sam operation. Jakarta dulu. Parce que bari nga fune. Na fune. Et ça très jeune. Xam nga experience bobu. Mais nga signé victoire ci euh euh limited nga jóge ci sa quatrième combat ñu jox la kan. sama quatrième combat sama quatrième combat bëriwu ma sax fii daanaka benn combat joon joon rek laa ko bëri si àll bi. ah ci àll bi la. waaw quatrième combat bi du fii. kon fii cinquième combat bi nga fi bëri. quatrième bi foo ko bëri. quatrième combat maa ko bëri fii Kaolack. Kaolack ku bëri woon grand combat bi. saa kii moo bëri woon grand combat bi kii kii Taïda.

combat boobu aussi ba mu ko jëlee dem naa Medina ñu daje mu ne ma grand bi ko naa mu ne ma am naa combat mu ne ma Sara ma ne ko tey nga dee am nga combat mu ne ma grand bi déet ma ne ko wuu booy boobu attention combat boobu combat choc la ma ne bëre. mën na bëri bëri na daan jël bu sama carte bi da koy preuve mais man yoy yëpp mooy loolu quoi dama xool ci mbër quoi man dama xool ci mbër man bu ma ñëwee damay appliqué damay def manam da nga ñëw ne ko xalé mo jaal xalé mo jaal bu ma yoy manam laaj ma lam toro mais lam toro lam toro bu faas lam toro sama jërbaat la neew neela wala laaj ma ko ñu ngi téggé téléphone légui mo fa mo bu baax lam toro amna foreign jaar musuñ laa ne mais ñoo bokk benn gaale bu ñu nekkoon gaay yi la amu gaay yi yàgg nañ fa daje. sama sama jërbaale bi ma ñëw léegi léegi may woo téléphone. 12 ans ñu daan fanaan. 12 ans 12 ans dem naa jëli ko kon da bi d' accord euh, nga bëri batiñ si kii comme ni nga ko waxee nga ñëw ne ko xajal ma ma jàll n' est ce léegi est ce que yow loolu ngay demee est ce que du xel moomu état d' esprit boobu moom état d' esprit boobu moom ngay demee ku taxaw sama kanam dama naan sama waa ji may ma jàll. ndox du bàyyi yoonam. maanaam te bu arbitre sifflé. ma war a sama adversaire. Hmm. maa dem maay pousse maay paas. yaay dem yaay pousse yaay paas. Hmm. maanaam ça veut dire ku taxaw sa kanam. taxaw sa kanam sama sama kanam laa la bu ñëwee damay ñëw bu ñëwul damay ñëw. bu arbitre sifflé da ngay actionné. bëre daan léegi léegi léegi euh, benn instant Sara euh, affilé nga quatre victoires sa premier combat moom dem. mu am benn tâche noire sa carrière mooy sa diggante Ibrahima nga jógee ci affilée quatre victoires de suite ah instant bii instant bii nii fan nga toll ci sama combat taxaw na sax ba ñu mooy loolu. sa combat taxawoon na daaw. sama combat taxaw na waaw. mbaa du corona bi moo fi jaar yàlla. 11 avril avril jour combat euh, Tigre Junior bu Lansar ak euh, Boy Diakhaw bu Thiès. nga amoon kan. juróom maa waroon maa waroon bëri huitième combat drapeau laa waroon yàggal Arsenal bu bu bu ëppoon na di sànni. ah taxawul. Arsenal dégg naa ne ñu koy démarrer seen combat foofu mais yëgu ma ne sa combat taxaw na. le 11 avril ngeen waroon bëri. kon comme bu muy actuel ba léegi. waaw li nga actuel ba léegi a leer c'est-à-dire xam naa ko bu baax moo dëgg moo dëgg buun. waaw mooy woon dëgg. waaw loolu la ñu woon. d'accord kon daal combat boobu taxawoon na. waaw combat boobu taxawoon daanaka taxawoon na